Eh, maa ngi remercier artiste Mass quoi xam si cadeau bi ma defal quoi parce que c'est pas facile aussi xam nga nga nekk ak ay nit yoo xam ne xam dañ lay bëgg am ñoo xam gis sax am ñoo xam xam mooy loolu quoi mais dañ lay bett ak yenn truc xam ne mooy loolu quoi xam nga maa ngi koy remercier c'est joli quoi mooy loolu ok merci beaucoup grand merci beaucoup mu la defal nii lan nga ci yëg quoi. si ça me fait quelque chose parce que lii da lay am na ñu nekk sa ginnaaw quoi. Mm. am na ñu nekk sa ginnaaw bëgg la mooy loolu xam nga. Mm. donc xam nga xam nga te occasion yi moo tax xam nga ñëw vacances. Mm-hmm. yi famille bi mm-hmm. mooy loolu quoi xam nga. Mm. maa ngi siy remercier quoi motivation supplémentaire la quoi. waaw waaw waaw c'est Mass. ok Mass jëlal micro joxal Mass ñu lay nuyu. maa leen di fay. moo la gën a poussé nga parce que Moussa Ndiaye dafa naa yàgg neex. Mhm. depuis ma ko di suivre Instagram. Mhm. waaw lu muy def tamit neex na trop macha allah Sadio Mané rek laa koy xoolee. Mhm. dama kaa bëgg sama xool barke Mouhamed. mais fan si ñu naan war na jógee Barça dem club bu muy footballé da looy wax ci loolu. waaw kanam rek. Ah. baax incha allah gisoo mu jógee si si. Ah. waaw. léegi <laughs> bu baax maa ngi tàggatoo ñëpp. di remercier fans club yi. di remercier tonton Kamou. Mhm. kontaan naa trop moom li yëpp si moom la. dëgg la moom mu jàppale. Mhm. kontaan mhm. fayam. merci. meilleur joueur de la chambre. des moins de 20 ans en 2019, l'un des révélations du mondial en 2019 des de ans. Moussa Ndiaye aura marqué les esprits de par son élégance, sa clairvoyance dans le jeu, mais aussi son engagement. Mais depuis sa signature au FC Barcelone en nous l'avons perdu de vue. C'est pourquoi aujourd'hui, BP Acti venu cueillir ce garçon, histoire de le faire sortir de son refuge, afin qu'il puisse éclairer la lanterne des Sénégalais sur bon nombre de choses. alors bokk internautes yi tey ñi ngi seet si nga xam te ne comme ni ma ko waxee nasaraan rek muy Moussa Yène nekk xale boo xam te tey marqué na esprit yi à compétition yu am solo yi nga xam amal na ko muy en bu ñu xool li nga xam mooy le champion d' Afrique des nations de 20 ans mu def ci compétition bu am solo jël li nga xam mooy meilleur joueur jóge fa aussi ci mondial mu bokk ci l'une de l'un des révélations du tournoi euh, mais en Barcelone ba a réer ci gëddu yaa asalaamaaleykum maa leen nuyu ñëpp c'est Moussa Ndiaye Zodou Ba c'est Barcelone oui ñëpp. Hmm. alors comme ni ma ko waxee rek actuellement nga nekk en vacances nan ngay passer vacances yi. oui ça maa ngi ak ak gars yi xam nga di vacances bu xam nga nit moom bu nekkee fee di liggéey des fois day baax nga ñëw seet si famille bi quoi tu ak xale ak xarit teg yëpp quoi. Hmm. Hmm. ça va ça se passe bien. ça fait combien yaa ngi fi. maa ngi depuis trois semaines quoi. trois semaines trois semaines waaw. Euh, vacances koy passé. oui ça va avec les amis xam nga ak fin bi xam nga xam nga gars ma lii génnee fépp yéen xam nga rukk-rukkaan ni mm-hmm. mm-hmm. nga ñëw am yooyu rek si di Aliou Sow nekk <laughs> ko bëgguma di sori gars yi mooy loolu xam nga. Mm-hmm. bëgg di jege gars tout le temps nekk ak ñoom affaire yooyu xam nga. moo tax may préféré nekk fii quoi te jege famille bi quoi. dina facilité de aussi récupération si si si uh-huh. si loolu kii ma quoi très récupéré et tout affaire ma récupéré rek dinaa récupéré su waree génn gars yi dem mooy loolu ñëwaat toogaat sama coin quoi. Hmm. alors comme ni ma ko waxee rek en deux mille vingt bi nga signé bi nga xam te hmm. euh, am te ne hmm. lan mooy signé signifié choix bi lu ko waral Barça. waaw xam nga boobu ba may signé boobu maa ngi woon Aspire Académie quoi. te boobu dañu amoon collaboration avec avec en Barcelone. xam nga amoon nañ tamit Aspire Open quoi bu nekkoon Belgique. ma xam nga boobu sa boobu si ñoom la dépendre woon quoi. mooy loolu mm. xam nga ñun amuñoon choix boobu mooy loolu quoi te FC Barcelone tamit du ma ne choix bu bon la quoi. Mm-hmm. yi fi nekk yëpp tey boo leen waxoon Barcelone mm-hmm. xam nga mun naa fa jaate seen formation baax na mooy loolu te sama première signature la. Mm. pour man c'est pas kii quoi xam ne lu bon la wala. Mm-hmm. waaw ah, parce que li ñu a xam mooy dafa doon choix bu am teen tey peut-être sa la ko exiger wala personnellement moo la gënaloon. waaw parce que balaa maa def dara aussi am naa ñu may waxtaanal sama ginnaaw affaire yooyu. xam nga hmm. xam naa am na ay parents am na ay staff am naa tamit ay coach yoo xam ne yàgg nañ ko te dinaa waxtaan ñoom affaire yooyu balaa maa def dara quoi. waaw hmm. nga doon intégré tamit mun nañ pour une première fois le professionnel. Hmm. nekk ci club bu mag bu toll noonu euh, acclimatation ak adaptation bi naka la demoon. waaw foo moom c'est autre chose quoi. parce que bokkul quoi nga nekkoon benn centre formation après nga dem e, def benn def première signature quoi. xam nga yegg si monde professionnel donc xam nga day changé quoi. te hmm. bokk beneen vie lay nekk quoi. Hmm. moo tax mais adaptation bi ça va hmm, mais lan moo doon def différence bi par rapport ak aspire environnement bi ak milieu bi. waaw du bokk parce que aspire déjà académie lañ lay tëj. te fee. waaw déjà da ngay free mais pas nekkul da ngay dem n'importe fu nekk affaire yooyu mais. yaa xam sa bopp mais. xam nga soo jógee si académie du métti trop quoi. nga xam ni ngay gérer xam nga ñu lay cadré xam nga yar bi tamit mooy loolu quoi. Hmm. si la waaye. Hmm. alors tey après deux saisons yi nga xamante ne passé nga ko Barça hmm. eh, ci équipe B bi notamment tey boo doon tiré bilan ban bilan ngay def ci deux saisons yi nga fa def. waaw ça va ah, ak année bi tamit moyen quoi parce que. c' vrai fait yombul quoi. surtout fële Espagne tamit mooy loolu. c' que nga fekk équipe boo xam ne dañoo am seen académie académie boobu. ñu ngi koy wax fépp Barcelone Mm. donc foofu xeex bi xam nga football moo demee noonu. des am na ay hauts et des affaire yooyu xam nga des ñu gis la des lu mu la dégg affaire yooyu mm. xam nga. mais sant bi nii yi ñu ngi si quoi pour pour régler problème boobu quoi. Mm-hmm. gars yi ñu ngi si waay. Mm-hmm. pour régler problème mais deux ans yi nga fa passé. Mm-hmm. tey bu ñu doon wax qu'est-ce qui n'a xam nga jour moom moo loolu moo demee noonu des fois affaire yi marché des fois nekk en bas loolu quoi jour moom des fois nga nekk top des fois am yenn difficulté affaire yooyu mais xam nga soo amee bopp bu baax rek ça va quoi a nga siy génn après incha allah. da nga siy génn après. tey nga ñu sélectionné woon la également fi nga xam te ne mooy équipe nationale A mës nga fa ñëw mm-hmm. euh, benn yoon de depuis loolu ñu bëri doon la xaar Moussa revenir actuellement am na ñoom teen sax mën nañu après yow lañ ñëw ci mm-hmm. mm-hmm. ma signé après boobu waar nañ waatoon nañ ma dafa fekkoon seen ma doon waaj ñëw ci laa blessé woon dama blessé woon après si laa toog deux mois affaire yooyu xam nga entraîné wu may joué ma après si la ma gars yi rawee ko tu vois. Mm-hmm. te ko si moom boo dul joué moom je mm-hmm. je crois pas ñu woo la affaire yooyu quoi. Mm-hmm. si la perte kii yu bëri. mais après di boobu maa ngi travail di continuer quoi. ah que bu nekkul woon manque de xam te ne moom am. kon yaa ngi ñëw régulièrement. waaw waaw waaw loolu moom c'est vrai quoi. xam nga mais yàlla baax na quoi. yàlla baax

faa nga changé pour jouer gars yi la gis après nga am temps de jeu bu doy quoi mais hmm. gars ñu ngi liggéey bu baax. Hmm. et yàlla baax na quoi fii quelques jours on verra. <laughs> fii quelques jours waaw. Euh, sur le plan physique tamit bëri na yenn yenn yenn coach yenn observateurs yi. Hmm. ñu bu la gisee ni ci gisin da xaw a tuuti quoi war nga yokk muscle quoi. waaw est-ce xam nga gars yi moom. c'est vrai coach nekk moom mën na la wax lii mais xam nga ñun fee Barcelone. dëgg la mun naa ne seen joueurs yi tu vois ñu si bëri sax maa leen suut mooy loolu. Mhm. on travaille pas mais nit ki mun nga travail c'est individuel xool la manqué tout mooy loolu quoi mais loolu yëpp mhm. euh, euh, am na ay club yu intéressé ku ci mel ni mhm. club Bruges Ajax. ba mun na ay club yu Ligue ay Lens ak ñeneen ak ñeneen. Moussa fan la toll ci négociation yi. waaye mais gars ñu si avancé gars ñu si avancé bu baax a baax mooy loolu gars ñu si quoi. comme li ma léegi léegi rek fii ngay xam ce qui va passer incha allah. Hmm. Hmm. alors Ajax moom bëggoon nañ la avant bien avant ngay dem Barcelone. Hmm, mel ni club la boo xam te ne Moussa na leen trop parce que ils sont revenus à la charge. ouais si si parce que déjà avant maa dem Barcelone demoon naa fa def fa visite am entraîné ak ñoom et truc affaire yi mais à la fin Barcelone laa mujjee woon signé affaire yooyu quoi mais ba léegi ñuy waxtaan affaire yooyu quoi. gars yi ñu ciy def seen liggéey quoi. parce que ñu dañu gis ni sa profil ça colle avec la politique de jeu. si bu parce que privilégié la la politique des jeunes. waaw waaw loolu gars yi ñu koy wax tout quoi. ak ko si ma mooy loolu quoi.